Heavy Bass.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 ñëpp naa def te nag loolu dëgg-dëgg du lu Sénégal xamoon Sénégal li mu xamoon mooy fonk waajur ak weeg maag bu demee nag tey ba ñuy jël ab xale bu ndaw taaj ko ci plateau télé yi muy dal ci kaw ndayam bi ko sukk jur waay waay mbaaxu réew maa ngi naax saay ma ne doomu Fatoumata Njaay tampi mi li mu def ëpp na ab xale bu ndaw bu jigéen amoo looy def lu dul dem ci ab télé toog ci plateau ñu tàllal la micro ngay wili pande sa nday pëtëlëw ma ne ak nday nu mu mënti mel nday la laa tey nee ñu ku ne sa nday lebal na la loo xam ni mënatoo ko ko fay ba mukk laa wax muy ëmb wasi nampal tete doom dootu ko fay nday ba ilaa yow mi diin addina nag bu demee tey ba doom di wër ay nit di ko jàppale muy tiiñal ndayam di ko sukk jur waay waay suñu réew mi yàqu na moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa la xewit ca Medina romb na doy waar ab liberté bu góor bu am 68 ans moo fa menacé ndeyam ji ko sukk jur am juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett ak paaka dina ko faat ay lan moo dal suñu réew mi ba yoon mujj na ko teg loxo magum retraité boobu daal ci kër gi la nekk dëkkee lëmbe kër gi xañ ndeyam ak jarbaatam ñoxor njaay mu tifaare leen ay saagay nday ak di leen xoñoñal ak arme ba bis nag waa fekk ndeyam ji màgget tëdd tiim ko di ko tifaare ay saagay njaay nday naka noonu ci la jarbaat bi ñëwee di ko calmer mu dal di ko ciy boole ñu naan deetawaay sa waay jël arme ne dina rey ndeyam ak jarbaatam way way waay ana waa koñ bi kii dañ ko waroon jàpp lapp ba muy bëgg a dee naka noonu nag ci la jarbaatam ji di ambaw dal di déposer plainte ca commissariat bu Médina ma ne kii yar leen ko de naka noonu ci la way takk der yi ñëw defee ko garde à vue ba koy enquête nag waa nangu na lépp li koy tuumaal waaye fi mu mujjee mooy ñaan njëkk ma ne ko mënoon nga koo njëkkee nag yi daal dafa xamadi yar leen moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca Cees romb na doy waar ab nappkat daal moo fa jam jigéen ju doon jaay boppam ba xaw tuut mu jaare ba ñàkk bakkanam musiba naaru lay mbir moomu nag nee ñu nii la demee nappkat bi dafa ñëw ci baar café des arts bi nak ca Cees dal di fay fekk jigéen jooju di jaay boppam naka noonu xaale ba juboo ci prix <laughs> mbete bong bong ca guddi ga nappkat bi am premier mandat gannaaw première mandat bi nag ci la dal di ràngarti ko ne faw mu am deuxième mandat ci noonu jigéen ji jaay boppam dal di ko koy lankal sawaay insisté ci guddi ndaw si lank ba tëdd ci naaj bi naka noonu ci la jëlee paaka tiim ndaw si di ko ko jam di ko ko jam ba xaw tuut mu jaare fa ñàkk bakkanam ci la ñu informé waa police bu ngiij ñu ñëw daal di évacuer ndaw si waa waaja nag fi mu ne teg nañ ko loxo <laughs> waay waay ma ne réew mi lu ne fii xew réew moo xam ne saa boo yewoo nopp daloot mu doon seen xibaaru buzz dig daje ci semaine bii di ñëw yeneen xibaaru buzz